dañuy commencer par sante yalla julli si yonentam mu tedd sallallahu alayhi wa sallam ah, euh, le président Macky Sall bi nga xamné euh sénégalais yi euh, gannaaw bu mu amalé élection yi wax deug yalla amon nañu soxlo won woon ñu bëri ah, mu porte joie bi tànn ma nek candidat mom la ñëk remercier ak équipe am bi yëpp euh, sante ko gërëm ko mais gannaaw lolu aussi ma ngi remercier sama collègue maire yi nga xamné wax deug yalla ci candidature bi manifesté nañ ci ben solidarité bo xamné vraiment ku ci né joxé nga disponibilité pour accompagner ma ci candidat bi mais gannaaw lolu aussi ma ngi sante euh, population yépp commune yépp yi nga xamné tay mobiliser, mobilisé wu nañ tey ñëw à faveur de Benno Bokk Yaakaar muy suñu candidature bi donc loolu am solo mais également waa Kër Sosé, équipe municipale bi adjoint au maire yëpp ñi depuis boobu ba léegi aussi ñu ngi ma accompagner ci campagne bi nga xam ne def nañ tournée ci quatorze collectivités territoriales yi nga xam ne nekk ci commune bu Kër Sosé. ñu ñëw nag vraiment ànd ak ñëpp def campagne bi si jàmm commune bu ñu dem vraiment ñëpp mobiliser wu wane ne ñi ci Benno Bokk Yakar ci biir campagne bi aussi constaté nañ vraiment bëri na conseil yo xamné ne nekkuñ ci benn bokk yakar mais ñi ngi ba ñew pour soutenir li nga xamné mom moy mooy euh, benn bokk yakar man mun naa joxe exemple sama commune rek 56 conseils la am bon 37 la ci am majorité mais tay ji may wax ak yow 53 yëpp ñew nañ ah ñaar a ñi ci dess ñaar ñi nañ ñu ngi ñëw donc ce qui veut dire que au niveau de cœur Socé mën nañu am vote à 100% non non lolu mom mën ta am parce que déjà benn Bokk est majoritaire parce que bo jëlé rek l'exemple du département de ba euh, bon benn Bokk sur 14 collectivités territoriales presque 11, 12, 12 benn bokk mo fa majoritaire donc il abstention <laughs> li ñuy wax mënul né c'est-à-dire li mom machallah yalla ni yalla fal chat li ñuy li wax kay moy taux de participation bi mom lañuy wax ni fi au niveau de Kaolack amnañ nañ né vraiment ci Sénégal taux de participation buñuy am fi ci Kaolack vraiment dina ko ci biir Sénégal yépp